Euh, salaamaaleykum mbokk internet yu waaye info ñu ngi am mbégte ak kontaan te ñu dalal tey suñu baay euh, un expert ci làmb euh, Baye Balla macha allah première avant combat bi dem nañ école bi fekk ko fa tey ñu ngi fekk fii ci place am ban demee ci école bi mu waxtaan waxtaan boo xam ne bu amoon solo ñu doon xaar rendez-vous aussi après combat Baye Balla avant may jox kàddu ngi di nuyoo di wax ñu dugg ci waxtaan bi maa ngi leen di féliciter aussi quoi di féliciter Balla ndam bi ko jig di encourager tamit Modou Lo tamit xam ne adduna moo tëddee noonu. sport moo demee noonu day am koo xam ne mooy ñàkk am koo xam ne euh, mooy am ndam ndamu Balla bi yàlla na jig Balla moom tamit bu amatee ndam moom Modou Lo bu amatee combat yàlla may ko ci ndam euh, Baye Balla ma bàyyi la nga nuyoo pare ñu dugg ci waxtaan bi. di nuyu waa Sénégal yëpp daal wax ñëpp yàlla bu baax nag ak Baye Laye ndax dugg si dara génn sa jàmm sant yàlla rek nga si war a def ndax ku ne xam na ni lu am rek yàlla moo ko dogal Modou Lo jàmbaar la Modou góor la Modou Lo taay bi mu am ak li muy def sax nekkul nekkul benn waaye nag boo jàmbaaree lu ne xëy na si biir. Eh, may wax ni daal bu xale yi meloon na Modou Lo ma xam ni espoir bi dina gën a jëm sa kanam ndax nit lu muy dugg day dugg ba jeex tàkk lu muy demee da siy dem ba jeex tàkk kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Géejawaay bu baax ndax jàppal nuñ seen doom di gërëm waa Casamance bu baax ndax jàppal nañu seen doom seen xarit seen rak seen lépp. di gërëm waa waalo ndax it ñoom it sëriñu bokk man mi di wax ak yéen waalo laa dëkk kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm suñu mbokki law bi bàyyi wuñu kenn ndax combat bi képp ku dëkk géej way wala nga am foofu fiite rek sa xol sedd na sa xol lu si nekkoon dañ na am nga sawarte am nga lépp kon nag maa ngi gërëm ñëpp rek non yabeel amoo xam nga sport yab kenn du si yab nit bis nga gis ku la daan te nga mën ko foofu waaw nga mën ko fuuf mu daan la kon jabeel mënu see am li si mën a am kay mooy yàlla bind na loolu ni da am si sa moroom ndam bu yàgg avant ngeen di ñëw kon lu mel nu fekkee dafa am du ñu mën lu muy rek eh, ñaan si yàlla bu amatee beneen combat mu am sa ndam loolu rek lañ koy ñaanal waa waa xam nga bisu dund du bisu dee Balla Gaye boo xoolee xam ne làmb bu mu si ñëw di soxla si indaale bu mu si ñëwet man man man man bu ma sëkk la indaale ku mel noonu nag bu ñëw si làmb yaakaar naa ne boo ko bëggee fokk daan ko du sotti il faut nga xeex ba yàlla may la ndam rek muy noonu waaye Balla Gaye xale la am na doole mën na li muy def am na encadrement bëggan li muy def ay param am na ko ndax su ma taxaw fii paam taxaw ne encadré ma taxaw fii yaakaar naa du doon kenn ñëw rek jaar si kawam dem. non man buñ si signature yàlla yëpp xam naa doole wuñ yaram ñoom ñaar bu ñu sumee ko toujours rek yax yee du benn yax yi du benn te daanante wuñu foofu sax ndax Modou Lo day daan ay ponkal Balla Gaye daan day bëri ñu toll Modou Lo ndax boo xoolee ay Ousmane Diop. ay bàcc seras ñooñu Modou Lo ñoo Modou Lo toll ëpp leen sax kon lu mel noonu bu amee du sax rëyaay bi c'est war a daan daana fi nekk gekku sa morom duma ko daan ko rek mooy làmb non c'est du si mystique may yàlla rek da nga doon temps boo xam ne sa mbir du du nekk loo xam ne ku jóg rek am si yow ndam yàlla mooy def waxtu woo jotee soo bëriwulee kenn dañu jaar si kaw daan la ndax dafay fekk jamono jooju mayem taxaw na non mystique mooy neexal lamb boo wutulee mystique doo bëre soo wutul mystique doo taxaw doo fi yilif dara fi fii Sénégal la ñuy wax Afrique la ñuy wax ku mën tëyeet bala fetal buy daw deux cent mètres trois cent mètres nga dóor ko nit mu wadd nga jàpp lëg wala picc wala gaynde gaynde gën a soxla ci rab yi jat ko boo ñëwee raay ko jox ko sa topp la mais kooku mënul ñàkk mystique si àddina lañ ko fekk si dëkk bi ko fekk même boo amoon say say doom sax ku si ëpp gàllaaj wala mu gën si bëgg gàllaaj loolu làmb jaa ko laaj ndax nu mu demee la ndax keroog bu su ñàkkoon fayda fa la làmbam di yem pare woon na loolu buñ ko daaneen keroog xamu nga nekkatul kuy bëreet te Modou Lo boobu Modou Lo mi ngi bokk beneen koomam si suuf kon donc yemuñu li ñu waroon def mooy def nuñu ko mooy bëreeg moom duma ko daan ko ñibbi jeex na. Sénégal gars kooku mun yëguma ko sax ndax Moussa Gueye bëri na ak Balla Gueye Balla Gueye daan na ko eh, bu dee ñeneen ñeneen bëri na ñoom moom daan na leen bu dee Tyson ba na ak moom mu daan ko participation kooku mbëggeel la nit ki boo ko bëggee mën ngeen daj si mbedd wala télé bi sax nga woon ko ni ko dama laa bëgg jàppale ko loolu du dara dañ siy kontaan kay si Moussa Gueye yow jàppale ko ndax it am na loo xam ne Moussa Gueye nag wax dëgg yàlla du cuune si làmb kon bu xoolee ba jëlee ko duñ si mën na muy sant yàlla doomam la léppam la si moom ndax ku ne xam ne Moussa Gueye ak Balla Gaye di toll wuñu wax ku doog a am fanweeri at ak koo xam ne léegi nga am am nga cinquante quelque at du ñu benn kon nag di gërëm Moussa Gueye bu baax di gërëm ñi ko jàppale ñi ñu jàppale Balla Gaye ñëpp di gërëm di leen gërëm ñoom ñëpp. waaw non erreur deful deful erreur def na benn erreur rek ndax ni mu songe Balla Gaye 2 songe woon na ko Bombardier mu diis si moom Bombardier am dam si moom su ma doon moom du ma song poids lourd su may bëree poids lourd mooy song lese lese mën koo daan ndax bu ko sukkalee daan ko su ko fentee mën na koo daan su ko moytoo mën na ko waaye poids lourd bu ko duggoon sax doo ko mën a yëkkati parce doo ko attan cent cinquante kilos borom quatre-vingts kilos mën na koo yëkkati du dëgg. kon nag bu fekkee ne xëy na dina xoolaat nag ndax am na ay techniciens am na ay ñu koy jàppale dañuy xoolaat yoon wi nga xam ne fa la war a jaara ñu teggi ko wutal ko beneen yoon bu gën a woyof boobu. ah ñooy Modou Lo dara yàquwu si Balla Gaye 2 daan na ma dara nekku si bu doon loolu Balla Gaye ñaari yoon MSN kon bu dee ku ñu daan nga nga jeexal sax ah ñu ni foo jëm kon mbër dootul am. mbër da ngay bëre daan boo liggéey ñu daan la nga bëre daan boo liggéey ñu daan la jeex na loolu rek li ma koy digal kay mu gën a yoru rek respecté doomu aadama yi xam na ne dëkk bi yàlla moo ko téyal boppam succès bu waaye am danga dem ba kenn dootu la tuddati ndax mënul am succès ba am succès bu bàyyam amul woon kon donc na yoru tegu si yoon respecté doomu aadama yi respecté ñi nga xam ne fa la jaaroon démb ak tey mu respecté ñoo ñëpp ëmb leen lu yàlla def na nga xam ne loolu la. waaw xam nga loolu mu defi woon noonu daf ko war a def def na ko yàlla may na ko ndam waaye xam nga nun lu mu def luy yokk rek wala koy may victoire rek ñoo ngi ci biir dañ ciy ànd ak moom. lépp loo xam ne naan lii su xalaat ne bu ko defee am sa ndam rek dañ siy ànd ak moom du benn problème pour lu muy kontaan gërëm ko te ko nag ñaanal ko yàlla mu gën di am ndam ndax fanweeri at dong lay doog am kuy doog am 30 ans nag dama dama ko fen dese na 15 ans si biir làmb ji yoo xam ne da ko war a ñëw kon lu mel noonu nag il faut mu góorgóorlu objectif mooy toog xoolaat suñu bopp te déema delluwaat même fi ñu jóge woon France fële baalu àq ñëpp parce que àdduna yëpp la war a baalu àq képp ku far ak Balla Gaye wala nga far ak Modou Lo sonn nga si combat yi sonn nga si combat parce que da ñëw doo bëgg kenn mer da ñëw bëgg ñëpp jàppale la kon nag e, di gërëm ñëpp rek di sant ñëpp di ko wax ne que ne yokkaat courage am defagul dara defagul dara de ndax bëriwul lu fi gars yi bëriwul kon nag comme day doog a dugg si ba nii rek presque di doog nekk mag ni ko jàppale rek ñun ñëpp. kàddu gi mujj di gërëm yàlla ak bàyyi laay rek mu may ñu fanu gudd eh, may nu jàmm may Alioune Sarr rek jàmm ndax bu amee jàmm ñun ñëpp nu am jàmm may am supp amateuru làmb yëpp jàmm may yéen journaliste yi jàmm parce que su ngeen amee jàmm rek ñëpp am jàmm jërëjëf merci merci